أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل أقلام والخرتاز يتحدثان حتى فرح لكل واحد منهما ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله خيرة خلق الله ومنبع لطف الله ومطهر لطف الله صلى الله عليه وسلم أما بعد gannaaw bu ma sante yàlla ba julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci émission bi ñuy def ci semes tuddee tuddee ko balliqoo ani walaw aaya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne jotalal leen ma dontele benn aaya la ci la ñu dellu si waat tey insha allahu taala wa qaala alayhi salaatu wa salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne e képp koo xam ne nattoon nañ la ay doom yu jigéen nga defar len bañu mëna jang alquran di jaamu yalla namu waré mune lolu sa paravent la diggante ak safara lolu reyna na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne isa sallatil mar'atu qamsaha wa samat sahraha أه، وحسنت فرجها وأتى زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب جنة شئت أيما امرأة مات وزوجها هن راد دخل الجنة يرنت بي صلى الله عليه وسلم نينا جيجين سو جولي وقتو جروم تسبار تاكوسان تمس غاي صبح اور ويري كورام فك بيم da du ba ba du ca def naka sa du noona topp jëkkëram mu ne kooku dañ koy wax rek duggal ajana te duggee bunt bu la neex waaw mu ne yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ne jigéen bu mu doon am njëkkër am ngërëmal jëkkëram dana dugg ajana ayuma imraatin maata wa sawjuha raadin daqalal jën na mu ne jigéen joo xam ne da nga dee yóbbu xaaleel sa ngërmandeel jëkkër da nga dugg ajana silaturahim yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ci walu jok mbok te alquran di wax ni borom bi subhanahu wa taala ne wa taqullaha allasi tasaaluun bi wal arham ragal len yalla mi nga xamne dana len laaj mbok gi euleuk yowmal qiyam kon ak mbok lu jara góorgóorlu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yansaluhu fi azarihi fayasilu rahimahu mune kep ko xamne secret wu nga di tal sa kar da joxe sa wursak kon jokk mbok mu ngi euh nañu def jokk mbok jokk mbok lu yalla bëgg la lu yonent bi bëgg la ndax taqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiban gannaaw loolu yonent bi salallahu alaihi wasallam di digle ne nañu nañuy góorlu ci jirim ñi ñi nga xam ne ay orphelin lañ ana yonent bi sallallahu alayhi ne ana kaafilul yatim man yonent bi maa garanti képp koo xam ne orphelin la ca jënn ne na ca ajana mu ne yonent bi sallallahu alayhi ne man ak orphelin yi ca ajana nii la ñu mel comme baaraam bi nga xamne moy baram sané kay ak baram bi nga xamne moy baram digg wa qala bi isba'i sababati wal wusta yonnati bi salallahu alaihi wasallam di wax ci walu rafet jikko rafet jikko mune inna inal muminina la yudqilu bi husni xuluqihi darajata saim wal alqaim Mune ne bi dana am jikkoom ju rafet darajaay ku woor ak darajaay koo xam ne dafa naafila guddi gi yépp loolu nit dana ko amee ci jikko ju rafet rek yor jikko ju rafet rek tax ñu bindal la yoolab ku woor wala yoorab koo xam ne nii e, dafa taxaw guddi gi yépp naafila ko loolu ci e, wàllu rafet jikko rek ci la ko nit mën a am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ana saim wal bayti fi alil janna liman xasuna xalqo xulqo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man maay wax ak bépp néeg boo xam ne nii ku rafet jikkoon fa ne kooku danañ ko dugal ci ajana yu gën a kawe ajana yu gën a kawe nag yonent bi fii tuddut ndax jënnatul si lañ koy dugal wala jënnatul naim wala jënnatul xuldi waaye dama ne man aja bu ma ajana bu ma ci am man Babacar Dramé bu ma ci am jël <laughs> waaw ñàkk lay bañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne innama yarhamullahu min ibadihi ruhama yàlla dana yërëm jaamam ñi nga xam ne dañuy yërëmante ci seen diggante yërëmante baax na lool ndax yonente bi sallallahu alayhi ne irhamu man fi sama yarhamukum man fi laar yërëm leen ñi leen faree ndaw bu ko defee ñi leen faree kaw ñoom itam yërëm leen hubbul xayri lil muslimina bëgg lu baax ci jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa yuminu ahadukum hatta yuhibu li aqi maa yuhibu li nafsi kenn ci yéen du gëm ba mbokkam lim bëggal boppam waaw nit ku nekk lim bëggal mbokam war nga ko bëggal boppam way lo bëggalul sa bop waro ko bëggal Tibi yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ci walu kersa kersa dafa bax ci lepp yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne al haya'u la yati ila bi khair kersa euh, du du dikkee ludul yiw ko xamne da nga am kersa yiw rek ngay am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne alxayaau min al kersa dafa bokk ci ngëm yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne arbaun min al sunnanil mursalina wa taaturu wa siwaaku wa nikaahu mu ne ñeent dafa bokk ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ñeent mu mel ni dañ ko ne ñeent yooyu ñaat yan la mu ne am kersa ak parfum foo tollu di xeeñ lu neex ak socc ak sëy waaye nag ah sëy bi itam ñu jaar ko ci yoon waxuñ di sëy rek comme ay bàyyi ma noonu kuy sey da nga war a am jabar waaye jigéen juy sëy dafa war a walla dafa war a am jëkkër moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne alxayaau wa taaturu wa siwaaku was nikaax ñeent dafa bokk ci sunnaa yonent bi xam kersa ak di parfum ak di soccu ak euh, di sëy ndax soccu yonent bi sallallahu alayhi wa am na lum ci wax mu ne lawlaa an asuqa ala ummati la amartum bu siwaaki maa kulli wudu bu fekkoon ne du diis ci sama xeet kon danaa digal danaa leen digal kenn nit ku ne balay julli mu japp mu soccu balay japp mu soccu njëkk kon soccu lu am solo la musafahatu inda liqa musafahatu inda liqa moy akolat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne ma min muslimaini yaltaqiyaani fa yatasaafahaani ilaa xufira lahuma qabla an yatafaraqa yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ne amut benn ñaari jullit amut ñaari jullit yoo xam ne tase na ñu def akolaat waaye na nekk góor ak góor wala jigéen ak jigéen waaye jigéen ak góor boo xam ne dañuy akolaat jabari jàmbur wala doomi jàmbur joo xam ne yow takkoo ko ngeen def def akolaat baaxut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na loolu mu ne ñoo xam ñaari góor ñoo xam ne dañoo tasee def accolade wala ñaari jigéen ñoo xam ne dañoo tasee def accolade mu ne ilaa xufira lahuma qabla an yatafaraqa mu ne yàlla dana leen jéggal njëkk balaa ñuy teqale ko yàlla jéggal na leen njëkk balaa ñuy teqale ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne di wax ci ñi nga xam ne dañuy soppante te yàlla tax bëggante te yàlla tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñi nga xam ne dañuy soppante ngir sama màggaay man yàlla lahum manaabiru min nuuri yaxbituhu yaxbituhum annabiyun wa suhada mu ne ñooñu ëllëg yowmal qiyaam yàlla dana leen defal pojoom ca yowmal qiyam pojom bi nga xamne comme yonenti ak sohada wi ñom ño daan eh, yek pojom bobu yalla dal defal pojom bu mel non kon sopante te yalla tax baxna te ñuy soppante nañu soppante ci ci li ci li nga xam l'islam lislaam nako kuy soppante ak nit na nga soppante ak mom ci lo xam yalla yàlla na loola yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne man daa li aqihil muslim ku ñaanal mbokam julitam mo xamne dafa faddu fàddu qala al malaku mu wakkalu bihi mune malaka bi nga xamne mom lañ la jox nga and ak mom ñu wakil la ay mbiram danañ wax amin yow yaangi ñaanal sa mbokk mo xamne nekku fi malaka mi nga xamne mom moom lañ la bolé mu and ak yow dañ wax amin di wax ne yow itam yalla nga am lu mel nonu ngay ñaanal sa mbokk moomu fadu sa mbokk mi fa me fi newut jam yiw wi nga koy ñaanal malaka yi dañ lay wax ne yow itam yalla nga am yiw wu tollu non jéggulul jéggulu julit bu góor ak bu jigen yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne man istaxfara muminina wal muminat xafara kataballaahu lahu min bi kulli muminin wa muminatin hasana mu ne képp koo xam ne danga nga jéggalul jullit ñu góor ñi ak jullit ñu géer jigéen ñi yàlla dana la bindal ci bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen yiw ah defe naa jullit ñi ñëpp ni ñu toll ci monde bi képp koo xam ne yaa ngi leen a jéggalul benn jullit bu nekk yàlla nga am ci moom benn yiw kon jéggalul jullit ñi lu am solo la kon nañuy góor góorgóorlu de jéggalul suñu mbokki jullit ñu góor ñi ñu jigéen man dal la ala xayri képp koo xam ne da ngay tegtale lu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man dalla ala xayrin fa lahu misla ajri faili képp koo xam ne dangay ngay tegtale lu baax lu baax la ngay tegtale képp ku def lu mel noona dana ci am yoon yow bi ko digle da ci am yoon te képp ku royati lu mel noona yàlla dana la ci bindal yoon isaalatul asaafi tariq dindi aw lor ci kaw yoon ni ki pont boo xam ne danga ko fekk ci kaw yoon wala bant wala lu mu mën a doon loo xam ne nii day gaañaate nga toxal ko ci kaw yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na loolu sarax la kon ku bëgg a saraxe te amula loo xam ne nii danga nga koy yëkkati joxe ci sa loxo fekk loo xam ne day loraate ci kaw yoon nga jël ko dal di ko toxal mu ne kooku eh, sarax la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne raaytu rajulan yataqallabu fi ljannati fi sajaratin qataaha min saari tariqi kaana tuzi naas mu ne gis naa benn waay boo xam ni mu ngay ëlbatiku ca ajana ci garab yoo xam ne daf ko daan fekk ci kaw yoon yi ay gajj yu ndaw mu dal ko dagg dal ko toxal pour bañ mu gaañ kenn euh, bañ mu lor benn nit mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne loola lu am solo la kon defe naa ñu may signalé ne heure bi jeex na waaye liñ doon wax jeexut di leen wax ne kon ñu ngi ndar képp fi sunu waxtaan. asalaamaaleykum wa rahmatullah.